teewaloon parti am ci benn ndaje boo xamante ni ñu ngi ko doon amal euh, fële ci république tchèque mm-hmm. euh, du 13 au 14 juin bi ñu ma ndax ñu doon wax ni dafa daw dana wax ni ci république euh, tchèque mm-hmm. la dawee ñoom nag ñuy xamal ni jot nañu regretter diffusion yooyu nga xamante ni jot na ci yooyu information yi jàpp ni dara amu ci te it mën naa indi porter atteinte ci honorabilité ki nga xamante ne moom mooy Souleymane Ndiaye ak ci engagement bi nga xamante ne am na ko ci wàllu politique ñiy diffuser yooyu information li ñuy sàkku ci ñoom mooy ñu fexe ba am preuve de rigueur euh, ci yooyu information ndax nañu dañ jàpp ne ay fake news la mm-hmm. euh, tey it wute na li nga xamante ne moo aju ci règle d'éthique ak déontologie tey lañu ko fësal moom bureau politique bi euh, nga xamante ni mooy parti S2D c'est ça euh, Pam Pa Ousmane jërëjëf comme ni nga ko euh, waxee Siré balaa ji mhm. euh, tàmbali ci yow reddition des comptes nekk mbir moo xamante ni préoccupation la ci ñëpp sénégalais yi doon ko xaar tey premier ministre génn daal di ci àddu loolu lan lay junj waaw daf may renvoyer benn benn benn message bu Babacar Justin Ndiaye waxoon nee tout héros boo gis du kilifa quoi war ngay éviter que ta parole devienne banale en fait héros war nga éviter que ta parole devienne banale moom la Cheikh Ibra wax nee jëf dafa gën a góor wax ndax yàlla du fay wax bàyyi jëf bàyyi jëf su ngeen ko xoolee bu baax euh, sooy xool le portrait psychopolitique je pense que euh, comme Sonko mooy Diomaye c'est ça qu'on a dit euh, Sonko devrait s'inspirer de Diomaye et Diomaye devrait inspirer Sonko comme Sonko mooy Diomaye <laughs> Diomaye mooy Sonko xam nga lu tax quand je fais le portrait psychopolitique de Diomaye par exemple Diomaye quand il était à l'opposition il avait la parole virulente d'ailleurs daa wax sax ba dugg prison wax moo ko dugal prison quand Diomaye défendait Ousmane sonk mais il sorte les tripes débat yi mu doon dem ne gis ngeen Diomaye opposition nu mu doon demee ci débat yi di monter au front Diomaye était dur sur l'homme pour parler football mais ba ñu faloo ba léegi Diomaye a fait sa mue de par la fonction, Diomaye a fait sa mieux. Et d'ailleurs, doo koy dégg sax muy waxati lu bari. ba ci waxin bi sax Diomaye ma daan wax au début quand je rentre ici si vous êtes moi <laughs> quand je suis et ak Diomaye bi dem Chine wax c'est diamétralement opposé Diomaye évolue habite la fonction. pour man nag Ousmane Sonko devrait s'inspirer de Diomaye xam nga du tax parce que Ousmane Sonko bi muy nekk opposition il était virulent il avait le verbe très haut bi gars yi waxee man mi toog naa defendre ko parce que son portrait psychopolitique ma ne leen Ousmane Sonko ñu bëri ñu ngi juum ci moom Ousmane mooy li mu doon ak li muy nduru li muy nduru mooy ko weex lay nduru mais ca la mu doon yooyu ku sedd la et d'ailleurs ces femmes l'ont confirmé ne Ousmane de pëcër pëcër yëpp bu ñëwee ci kër gi. comme xar bu yar du loolu la ñu waxoon. xaram sax du ko rey. xaram sax du ko et que kon donc si yu Ousmane juddoo ci politique moo tax mu woon bañ a def lii parce que Macky da ko bëggoon a rey donc il fa que mu fiq maintenant léegi dem nañ ba génn ci opposition dugg au pouvoir je n'ai pas vu dans l'intervalle un changement comme je l'ai vu avec Bassirou Diomaye Faye le président Bass et cetera cest à que un euh, Ousmane Sonko beaucoup plus calme hmm? comme ni ma la wax nii xam nga aujourd'hui il a kii euh, comme man sama waay la te maag moom. ñoo far ah, waaw waaw non non cest dire que euh, je veux pas utiliser un mot qui semblerait blessé parce que euh, ñoo far maag moom mais su mënoon wàññi wax ji tey jëf parce qu'il a tous les leviers pour jëf xam nga exemple je donne un exemple. Ousmane Sonko disait que par rapport à la reddition des comptes dont vous disiez madame que bu ñu demee tabaski gars bu ñu tabaskee pare ma ngay reesee ca ca prison yi que certainement ñu dem lekk tabaski ñëw mu rees mujjul fenn gars yi ak nii di dox dëgg du dëgg ñu ngi woon màggal Touba gars yi dem nañ màggal ba ñëw fii ne ña nii di waajal dem gàmmu ji est-ce que comprendre donc comme yaa yor les la plénitude des pouvoirs jarul wax yow toogal bu jaree nga war a communiquer foo toll. waaw te non très bien. non non pas communiquer foo toll c'est-à-dire dañoo aspect yoo xam ni jarul wax ndax olof Ndiaye dañuy wax ni ku xam ku ñu xam foo jëm doo gaaw a àgg cest dire que tu as les yow bu jotee rek def ko parce que di ko sax dana tax ñeneen ñi jël seen matukaay est-ce que vous hmm. dire dafa am affaire yoo xam ni jar na wax mais am na ay affaires yoo xam ni jarul wax parce que tu tous les leviers pour activer ko est-ce que vous mënoon na bañ a annoncé ci affaire yi non non pas yooyu noonu. ça veut dire ah, que non non ça li bëgg expliquer mooy comme nee na danañ jàpp diw dañuy non nañ dem jàpp diw waaw dañ doon ñu jëlee mais nañ dem fi ñu doon ñëw jarul wax parce que tu as tes leviers xam nga yaa yor affaire yaa yor bagage dinaa dinaa dinaa ça fait presque trois mois quatre mois Euh, dama lay raconter benn euh, anecdote Abidjan dañ fa nekkoon quoi suñu benn waaye lu ñu wax mu ne oui je peux je gars yi dajale bagage yëpp jox ko ne ko ah léegi maintenant peu nag peu xool nag quoi et cetera donc euh, pour man du loolu moo tax ma doon ma doon wax ni position bi mu nekk fonction bi mu nekk moo ko indil lii lépp mais Ousmane Sonko ci fi mu jógee deux mille vingt et ba léegi au delà. deux mille deux mille seize depuis ñu daxal ko fonction publique ak traversé boobu il y avait beaucoup soxlawul woon. nekk au front of xam nga lu tax parce que grand fusible c'est très bien encore que c'est une théorie en science waaw non moom wa euh, mais ce meilleur élément doo ko def fusible xam nga kan ngay def fusible koo xam ne bu affaire bi bu burlee mën nga jëm keneen dem mais mënuloo am un Ousmane Sonko d'essayer di ko exposer à ce niveau parce que fusible loo xam ne fusible bu haute tension amee wala baisse tension amee. mais si Ousmane ne s'expose pas est-ce qu'il n'exposerait pas le président non non non non non non non non pas du tout c'est-à-dire que gis nga tey jii la tey jii boo xoolee. toutes les crispations et toutes les tensions convergent vers Ousmane Sonko convergent vers Ousmane Sonko. même bu noppi woon sax même même. très bien absolument. Ah. te te te waxam bu noppee ñu non très bien ah, la mu wax. waru ko wax. voilà euh, non c'est-à-dire moom la. posture war a am. waaw non posture bu mën a am ñu critique. non non non xam posture bu mu war a am pour man li mu war a def mu def ko. li ci des mu dawal li Mbaye Dièye Faye doon wax xam nga yaa ngi koy expliquer léegi doom ji baay ji mbaam mi kon donc palaa ku li Aline dañuy wax maintenant yow boo xoolee bien euh, Diomaye Bassirou le président de Bassirou Diomaye pour man dans le temps de ces quatre mois a énormément évolué et Ousmane Sonko boobu ba léegi dans les postures da ngay jàpp ni on dans le dans l'opposition quelque part et d'ailleurs loolu lu ko indil mooy li nga wax léegi fusible bi mu nekk donc bu courant day coupé haute tension wala tension ci moom lay njëkk kii bi te soxlawul woon loolu parce que pour man dama jàpp ni sax il y en tout chose le temps de l'apprentissage et le temps de l'observation au plus au-delà de l'apprentissage mais de l'observation ndax gars yi ci contexte historique yi ñëwee au pouvoir est-ce que comprendre mi ngi mel ni ngay daw euh, marathon du ñu ni priorité ngay accéléré déedéet déedéet. il faut gérer sa clameur populaire mooy ñu ci bëri dañuy wax ni way mbir yi yéex na. ah, ah. war nañoo fexe nu ci sóoboo lu tax ba tey ah dossiers yi fi nekk rapport yi. waaw mais mais mais mais c'est que. xëy na mu ciy euh, de garder. non non non communication bi attention l'erreur euh, euh, l'expérience n'a de sens que si on en tire des leçons. am na ñu bëri yoo xam ne Ousmane Sonko opposant daf ko doon wax tey peut-être mettre na ko dans des situation inconfortables est-ce que vraiment foofu lay waxee tey il a la réalité du pouvoir mën na wax benn affaire demain ñu jël ko contre lui et donc pour man c'est le temps de l'action en fait est-ce que vraiment cela tu peux pas conduire un gouvernement et ne pas communiquer loolu c'est impossible parce que dirige un gouvernement mais c'est que dama bëgg a wax ne am na ay éléments yoo xam ne jaroo ñu ciy wax kooku jëf ko est-ce que parce que nga ci topp ci di wax ak yooyu ëllëg mën na la indil jafe-jafe bi mu la indiloo comme bi nga nekk opposition xam nga tey jii kii mi ngi koy expliquer léegi y a beaucoup de euh, euh, euh Aliou Sow Aliou yoo xam ni dañ koy teg naan Ousmane Sonko ma fi waxoon lii maintenant loolu loolu loolu laa bëgg expliquer daf ko war a am benn leçon bu mu ko servir et que comme léegi maa yor la réalité des pouvoir jaratu sax ma ciy développer lu bari est-ce que vraiment li ma war a def bu jotee ma ñëw def ko avancer jàll ci leneen mais ne dire comme ça le répéter comme ça et cetera s'il y a point. sur lequel euh, je suis un peu resté sur ma faim su ma koy comparer mook Diomaye bi ñu nekk opposition c'était virulent euh, et puis il le fallait parce que contexte bi moo ko laaj maintenant Diomaye dafa ñëw au pouvoir sol d'autres habits pour man nag Ousmane jusqu'à présent n'a pas encore porté véritablement les autres habits qu'on attendait que souvent mi ngi ci kii te bokkatuñ ay responsabilités parce qu'il n'est plus dans l'opposition maintenant il gère comprends il n'a pas besoin surtout que dans un contexte au Sénégal yi ñu wax ni bu ñu xamee foo jëm euh, et cetera et cetera pour man euh, si s'il se concentrait sur l'essentiel def li muy war a def sans pour autant donner beaucoup d'effets d'annonce et cetera parce que loolu monsieur Babacar Justin di wax parce que kilifa bu yàggee sa wax bu yàggee nga naan nii demewul nii bu bu yàggee gars yi dañ koy soofante ma jox la benn exemple opposition bi tey jii am nañu ñoom lu ñuy wax xamul tax parce que combien de temps on les avait menacés que léegi ñëw ñu commencé def la reddition des comptes diggante bi tout le monde avait mais léegi ñoom dem nañ am fit sax léegi opposition bi léegi dañ dem ba mujj léegi dañu am fit sax ñoom pour en découdre avec Ousmane. Uh-huh. waaw waaw boo leen gisee ni ñu taxawee assemblée et cetera et cetera te pourtant bi ñuy doog ñëw au pouvoir ku yaa ngi doon xalaat yow euh, sa bopp. comprendre nan lay def ba sauver sama tête mais léegi dem nañ ba mujj gi opposition bi dafa sax ñeme léegi ombaaba ak yooyu te dañuy wax rek comme olof li muy wax nit su mënee sa wax waaw mën na fa doxee mu mu mu mu mu waaw ku miin soxloo yàpp la te opposition bi dafa commencé yàpp Ousmane sonk parce que dañuy commencé miin wax moo tax yenn affaires yi jarul sax mu koy kii su ko waree jàllale rek na ko jàllale ñu nekk ci leneen quoi. d'accord c'est Euh, Pape Moussa ba tey ci euh, mbirum reddition des comptes comme ni ma ko waxee p PM génn na waaye ñu gis ni tey l'honorable député Pape Djibril Fall moom euh, jàpp na ni Ousmane Sonko amul légitimité di wax ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a teg loxo wala sax fi ñu jëm jëm ci mauvaise gestion ci nguur gi fi nekkoon ndax jàpp na ni am na ministre de la justice boo xamante ni mën na lijjanti wàll woowu. Qui a la responsabilité de veiller